ni ma leen koy waxee saa su nekk kenn du ko fi présenté di ndax xàmmee nañ ko fi bu baax a baax a baax a baax wante nag rawatina ci biir réew mi ak bitim réew ak àddina wërgal këpp rawatina diaspora bi nga xam ne saa su nekk ñu ñuy bége di ñu safo ñu ngi leen di bége di leen di safoo ni ma ko waxee suñu mbokk Gambien yi ñuy nekk Europe États-Unis d'Amérique euh, fépp fàttewuñu kenn Italie ñu ngi jaar ñëpp euh, tey nag maa ngi dalaat beneen kilifa buñ naan Serigne Mouhamadul Makhtar acca kooku nag wax naa leen ne euh, tey nag laa fas yéene jàkkaarloog moom ñu waxtaane ci lépp loo xam ne mu ngi ci biir réew mi di lëmbe tey nag di ngeen mës a dégg émission bu ngeen mës a dégg émission bu neex te tàng sëriñ Mouhamadul Makhtar maa ngi lay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdaalin amin allahuma salli ala seydina muhammadin ilfatix lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa naasir ilxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaq xadri wa miqdaari alazim yaa himmata cheikhi uxdur lana bi haadi almaadari wa taatafi bi nazratin taati lana bi sawarin waaleykum salaam cheikh ñu ngi leen di fay nuyoo te di nuyu waa réew mi yëpp ñu nekk fii ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew góor ak jigéen mag ak ndaw mhm. di santaat yàlla beneen yoon di julli ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di salmal ci moom mhm. di leen di wax ne ñu ngi leen di gërëmaat beneen yoon mhm. ci dalal bi ngeen ñu dalalaat ci deux cent vingt et un mhm. maa ngi lay fay nuyoo di fay nuyoo sa caméraman muhammad di nuyu jotaay bi ñu fi toog yëpp di leen wax bismillah tarkalla euh, ca euh, jërëjëf euh, Serigne Mouhamadul Makhtar ñu ngi lay fay bu baax a baax amaat kontaan te dalal la ci site bi di 221 people tey nag niñ ko faral di def ak ñëpp foop nañ fas yéenee tàmbaleeg yow fi may tàmbalee ci yow nag ah doy na waar de man moom réew mi moom xaw ma àddina bi mooy tukki xaw ma nu fa demee nii coow li lëmbi réew mi bëri na. donte li ko lëmbee ñu nga fee bitim réew waaye lépp li ci ëpp fii la ndax fii la ñu cosaanoo fii lañ soqeekoo. coow li nekk ci diggante kii di Adamo kooku duma la ko nettali yéen ñëpp xam ngeen ko Ndiolé Tall Sankara Mbaye ñeneen ak ñeneen lan nga ciy wax. Euh, ñooñu xaw ma leen ñi ngi may wax xaw ma man dëgg yàlla rek bu la dëgg aw ma jot. Mhm. ci loo xamante ne ni loolu daf ma doy sëkk toppatoo lu bëri tamit. Mhm. yàlla xaw ma leen billaahi xaw xaw yàlla xam na ak seen coow li ni mu amee. maanaam ma leen ni ko gars yi day waxee bës bëri. yàlla xam na ne xaw ma leen yow yaa ma door a wax tey seen tur xaw ma leen. Mm, mais déggoo leen fenn. waaw déggu ma leen xaw ma leen maanaam ku ma leen xamul rek ma leen ndax man aw ma jotu sédantale man fi may gis nii mm. man sama bopp laa ciy xool. loolu da jafe na sëriñ bi. <laughs> man. Mm-hmm. xaw ma benn sëriñ si nga génne si xaw ma dama leen di dégg rek. waaw loolu de <coughs> loolu de waxin la yéen ñi am dégg-dégg quoi man mu doon jigéen tey di sëy. Mm-hmm. benn laay ne suma jëkkër du ma am wujj man sama bopp rek laa xam. Ah. Euh, te di la wax leen lu jig njaag. Mhm. yéen internet bii ndax yéen. Mhm. lu yàqu ci réew mi yéen a ko yàq. lu jekk ci réew mi li nga xam ne dañ koy nëbbu. Mhm. yéen a koy feeñal luñ dul wax yéen a koy wax. te waxtu wu ne. da ngeen di bàyyi li li am njëriñ. di wax loo ci loo xam ne nii amul benn njëriñ amul laa fayda benn fayda hmm? euh, ñu ngi jaale benn kilifa ci ahlul muridiya muy sëñ aatu nekkoon njiit ci isbu tarxiya hmm. ci solo li ma lay wax ne dangeen di bàyyi lu am solo di wax ci loo xam ne ne amul benn njëriñ laa wax dal nga ci maa ngi koy hmm. jaale mboolem kuy jullit di ko jaale mboolem kuy murit ak fu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew mhm. di ko jaale xalifa bi sëñ Mouhamadul Mountakha ak waa këram yëpp mhm. keroog bi nga xamee ne dañuy jébbal aatu boromam mhm. sëriñ bi dafa def loo xam ne loolu rek dafa doyoon wax bu weer bu fekkee ne ñun li ñuy oote xoo ñu dëgg la ci ñun mooy dafa simmi yéreem ñu sàngee ko aatu moom lañ ko jébbalee borom waa lii doy doon wax ci internet dama lay laaj doyatul wax ci internet. Mhm, mhm. wax nañ ko sax jàllale nañ ko internet yi. maanaam jàllale bi xamul ci dafa doyoon wax. Mhm. maanaam li mu ko defee. ak li tax mu def ko yërmande ji mu ko defee ak nam ko jébbalee boromam. simmi yëreem moom simmi ci biir ci biir baax yi laa wax de waxuma ci biir kër ga de. ci biir baax yi la simmi yëre bi ñu ko aatu. moom lañ ko jébbalee boromam. loolu di mënoon nañu woon cee wax. waaye ngeen topp yi loo xam ne ay xaw noo ko waxee ku ne ngeen nekk di wax euh, li ma ci wax mooy. ma wax mooy dégg naa ci tuuma. Mhm. mooy tuuma ak njaalo. loolu nag am naa droit wax ci ndax ju la. Mhm. dikkal. cheikh. Mhm. ci taarixu islam ñaari ni dong la yonente bi sallallahu alayhi ci dundam moo see ci njaalo. ku njëkk ki. maïs lañ koy wax góor la. keneen ki su tegee alxamidiyatu lañ koy wax. jigéen la. maayis bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu ne ko yaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam dama njaalo bëggoon nga àtte ma yonent ne saxaaba yi ah maayis mi kañ la la dof saxaaba yi ne ko ah ñu de yàlla li damaa njaalo ñëwoon pour nga mhm. bi ne waxaat saxaaba yi maayis bi kañ la commencé mandi naan sàngara xabayi ne ko ah, ñun de yëguñ fi ma maas dina lay sang saxaaba yi jàpp maas mm-hmm. ibbi gémme ngi xeeñtu xeeñu sang maas yaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam damaa jaaro bëggoon nga àttuma la yonent ba mu ñetti yoon mm-hmm. mm-hmm. ak njaalo ni mu sensibiliser laa lay wax dafa sensible dafa nekk loo xam ne nii nii. ci wàllu sariya sax. àtteem mm, mm. suñu eboo ñu ne loolu mënta ne lañ ca wax ci lañ lañ ca wax li nga xam ne nii moom mooy àtte ba. Mm. ak ñi ko war a témoin itam wér dëgg. suñ ci xóotee. nekkul sax loo xam ne nii yomb na ci jamono ji. rawatina suñu miin réew. réew mi nag. ndax fi ne nii réew mi ñëpp. bu ñuy wax njortu rek lañuy ñuy waxee. Mm-hmm. njortu lu ñaaw rek la nit ñi di tuumalante mais kenn ci ñun. Mm-hmm. du wax ci moroom loo xam ne daf ko teg bët. di ko wax naa ko ci nit mhm. ngay dégg mhm. wala njort naa ko ci moom mhm. kese tuumalant rek moo fi nag waxante du ñaaw waaw jafe-jafe bu am ci réew mi te yéen yéen yéen site internet yi a ko gën a yéen a ko gën a feeñal keneen ki jigéen la muy alxamidiyatu dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour wax la euh, pour wax la ne la gis nga euh, Cheikh Sénégal dañ ne ay ay jullit lañ waaye man daal loolu jaaxal xam li ma gën a jaaxal. Mhm. mooy liñ ay jullit lañ te suñ jikko suñ jikko ñun suñ jikko dafa niroo dara ak ak ak jikkoy jullit. maanaam pour mu gën a leer lan nga bëgg a kii. damay ñëwaat ci li mhm. ma lay wax. ne la bi alxamidiyatu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko yaa rasulallaay man de dama njaalo bëggoon nga àtte ma. yonent bi ne ko ah mun ko mun ko baax mu dem. ba mu ñëwaatee mu fek fekk mu ngi juróom-benn weer ci ëmb pour ni nit war a màndoo mu ñëwee wax ko loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaareel yoon bi yonent bi ne ko ah baax na demal ba jamono mu ñëwaat ñaareel yoon bi la ñëw ëmb juróom-benn weer mu na ko demal ñetteel yoon mu ñëw am doom ci liir bi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ah dama doon wax ne damaa njaalu day bëggoon nga àtte ma mu ngi nii doom ji juddu na moo nekk nii bi sallallahu alayhi wasallam ci yërmandeem ci ñeewantal liir bi. Mhm. mu ne ko waa baax na demal ba mhm. mu dem ba doom ji fer. alxamidiyatu gàdduwaat eh, eh, doom ji ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko damaa njaalo woon doom ji mën a doomam mu ngi nii tey jii fer na damaa bëgg nga àtte jël doom ji dugal ko ci biir kër gi oo saxaaba yi ne yóbbu na alxamidiyatu ngeen ngeen ngeen ngeen ñu yóbbu ko ko biñ ko yóbbu àtte ko comme ni ñuy defee ci tribunal yi fii ci réew mi bu ñuy àttee nit ñi dañuy toog témoin di déglu. Mm-hmm. ngir ëllëg ñu am ñu fa teewoon ñu di ko coow ay yar ba mu rëcc daw bi fajar gi jotee ñu am ñu julli si jàkka yëndu sallallahu alayhi wa sallam ba pare yonent bi génn am kum dégg muy wax ne alxamidiyatu dey toskore bon kii nga xam nañ dafa tooñ moom ñu koy àttee di ko dóor ay yar mu rëcc daw yonent sallallahu alayhi na ko hey yow de ki ngay wax soo xamoon yool bi am nim toll ci lim tooñ yàlla baalu ko buñ dajale woon ñun ñëpp suñ jëf liñ jaamu yàlla buñ dajale woon yëpp iw gi xiwam moom mi nga xam ne nii tooñ na yàlla njaaloo ba ñu koy caw yar moo ko te yàlla dafa wax ci alquran ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yàlla digle ne màndu ak rafetal mhm. lu wóorut. Mhm. waroo ko wax ndax yaa ngi koy wax yaa ngi koy wax ci koo xamante ne nii xamaloo ko dara. kon coow li nga dégg ci diggante Ndioletaal ak Sankara Mbaye nan nga ko mën a jàppe yow. li ma la wax moom li ma la wax moom li ma la ni moo ci ne rek. lan moo doon ki yéen ñi nga xam ne am ngeen mën naa ne boo xam ne gudd na am na lu leen yàlla may te du ngeen waxee nit ñi leen déglu. loo fa bëgg a wax moom laa lay wax dama ne la. Mhm. ci tuuma la. Mhm. li ma dégg nga wax ma tuuma la laa wax. xam nga waxuñ ne diw moo fekk xëppi bëtam gis. tuuma la laa tarkal la euh, ndax coow li dafa bëri ci nit ñi. ak atte sariya ci wàllu wàllu wàllu njaalo nekkul loo xam ne lu lu lu yomb. Mhm. mu ngi mel ne eh, yaa ngi dégg li ñuy wax eh, yaa ngi dégg zakat azak. Mhm. Euh, euh, di mooy li ñuy wax miraas yombut. ne dafa nekk lu lu maanaam dafa ne loo xam ne ni yàlla suñu borom rek yàlla rek da wóor la leer. Mhm. ndax soo demee ba tey ci risaala ci su nit njaaloo ni ñu war a àttee ba ne dëgg la njaalo na ñu jox ñu teg ko ay daan lañ ca wax. Mhm. yan critère lañ fekkee pii maanaam sàkkar góor ki di dugg ci pays ku jigéen ki. Mhm. ndax ñoom ñeent ñëpp ko fekkee. ñu foofu nag bu fekkee ne ñoom ñeent ñeent ñëpp ko fekkee dañuy dem làcc ji. ci ñoom dafa yaatu seex. tarkaal moo tax dafa ne loo xam ne dama ne la. Mhm. lu rëy la. waaw gis nañ nit. ak nit rawatina nag koo xamante ne ñoom ñaar ah, kii am na am na am na jabar ki am na jëkkër. xatte yi soo xamee mhm. xatte mhm. mhm. naa moo tax yàlla sax dawal ci yërmande def ci su mel waaw waaw waaw waaw ci tënk rek euh, balaa maa jaar sama ñaareelu question maanaam ki nga xam ne moo indi wax ji ki wax wax ji ba coow li indi di lëmbe ci biir réew mi ak ki jottale maanaam ki nga xam ne moo joxe information bi ba mu tas ci nit ñi kon ñaar ñii nii lan moo mën a doon seen atte lan nga ñu ci mën a laay biir nga jàngal ñu ci seen atte lan moo leen ciy xaar seer daal nekkuma fi di joxe xàtteb kenn li moo koy xaar. def katub ñaawteef. dama ne la jàng war koo mën a jàng. dama ne la yàlla daf ne ci alquran. Hmm. inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan yàlla digle na mandu ak rafetal. loo xam ne nag yow fekkee hoo bañ koy def xamoo sax xamoo ñan ñoo ko doon def. loolu dégg nga ci am li ci lislaam moom nga xam ne ci wàllu sariyaatu la wax naa la mooy si yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. ñaar rek la mos a atte ci wàllu njaalo mhm. te gis nga avant mu leen di atte ku ci ne la mu wax ak yow nga mu dàq la nga dem nga ñëwaat mu dàq la nga dem ba muy ñetti yoon kee ba muy ñeenti yoon ba juróomi yoon ba doom ja fer ak doom sëy ak maanaam ak ëmb nu mu yàggee nga ëmb ba am doom ba nàmpal ba doom ja fer nga door a atte nga xam ne nii dafa njaaloon tarkal man nag kon toog ma toog bi nit ne fii di di di xàttel ki ne ko ki di koy dal ak léegi rek ñoo yëpp maanaam yéen yéen la yéen non comme yéen leen mën ngeen di wutee bës gañ dem leen rek non du ñun du ñun ndax ñoom ñëpp a yem ñoom <laughs> ñoom ñoom ñëpp a yem da doon waa internet bi bul maas nuun bi ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñooñu nga wax ñoom ñëpp a yem waaw kon baax tamit nañu wax uh-huh. dëgg uh-huh. gis nga nit bu uh-huh. fekkee ne li may wax toujours yi nga jigéen boo nekk ci sëy ak koo mën a doon woykat nga ak loo mën a ne liggéeykat nga jéeral sa sëy waaye am jëkkër ne si àll bi ñetti weer loolu nañu waxante dëgg tamit nag loolu góor sax waru na waar man de sama jabar du ma nangu bu def sax ñaari semaine ci jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Mouhamadul am na solo ci ponk boobu ñu nekkoon am lu ñu ci leeral siwaat ci ndax euh, doon na loo xam ne moo lëmb réew mi. acca damay siwaat nag euh, ci biir réew mi mais ci jafe-jafe réew mi ci laay dellusiwaat. waaw jafe-jafe réew mi réew mi métti na. ku la ko wax seex ak ku la ko waxut. métti na ci néew di doole yi man damay toog ba mu yàgg may xalaat ne que milliard maanaam milliard li ñuy wax ne maanaam nit am na milliard est que dëgg la. te doy. ah mais Cheikh milliard benn nit war ko milliard ko lekk benn nit. nit war naa yor milliard di ko lekk ba xëy dee milliard benn nit li ñuy wax ne mooy milliard. maa gis ku ko def. ma wax naan diw am na milliard laa xanaa bu ñu ne diw am na damay laajte ndax loolu ma ne ndax li ñuy wax naan diw am na milliard ndax loolu dëgg la lay la ah ñi ko am kay ñu ngi koy wax ku am milliard kay gars yi dañ koy kii moom ku am milliard moom mënta nëbbatu moom. waaw léegi nag. Mhm. ci loolu dama lay wax benn waay sax la ko doon wax ci jamono yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa si mhm. jàkka ji rek la nekk di di jaamu yàlla. ba mu yàgg ba benn bés mu dafa am ay niseer moom ay mébét tabax jumaa def lu baax dimbale def ci alal. Mhm. mu dem ci yonent ne ko ñaanal ma yàlla. yàlla indil ma alal ndax bëgg naa nangam ak nangam ak nangam yonent bi ne ko saxla bata est-ce que doo dem ci xaal bi la yàlla tegoon rek maanaam doo dem rek di jaamu yàlla ne ko yonent bi ñaanal ma sonal yonent bi sonal yonent bi salaa salaam ñaanal ko hmm. ci niñ nettalee xista bi moom mooy ci benn ganaar la tàmbale ba dem ba ci ay gilam ci ay téeméeri gilam hmm. eh, laaya azaka wàcc ñu laaj ko azaka mu bañ te moom moo waxoon ne éene boobu la am pour wal na ne la borom alal yi hmm. lii ne seen eene ñoom ñu eene ko avant yàlla di leen jox alal ji ak buñ ko amee. doy na waar ku ci gën a ëppale alal. Mhm. moom moo la gën a ñemee ngistal te alal ji moom moo ko yàlla daf la ko dénk rek ndax moom ba ñëwee ñu laaj ko azaka ñu ne ñeen fukk ne benn nga ci génne xar bu dee ñeen fukk benn nag bu dee ñeen fukk benn gëlëm bu dee ñeen fukk nga yéene benn bu mag mu loolu dafa bëri. te moo doon ñaar yàlla xalal. masalan ñan nga mën a gis ci réew mi ñu yor alal di ci def. bëri na ñi yor alal fii ci réew mi ñëpp ñëpp laa wax ñi yor alal fii ci réew mi ñëpp. genn wàll gi ñëpp ay nit yi àddina lañ ngisal rek. la ñuy doxee ndax gis nga da ngay gis des fois dama koy gis ci télé yi. dimbale ay nit indi la si caméra wane la jox la cent mille wala deux cent mille loolu dafa toog nit kañ. waaw dimbale ko ngir yàlla. mais teraanga la nag. teraanga la. teraanga bu ñu dëgg la teraanga la waaw teraanga la mais xanaa teraanga ji nekkul ne dafa am ku la ko teraangalal yow alal ji moom moo ko di yàlla moo la ko jox. <laughs> yàlla moo la jox teraanga ji teraanga bët la déedéet ah, maanaam ki ngay defal ki tax ngay def yow ki tax nga ne moom moo tax ngay def su fekkee ne amul leneen lu ci nekk su fekkee ne ba mu nekk nag moom mooy jar ngistal waaye bu fekkee yàlla rek a tax dëgg-dëgg nag am na loo xam ne nii nag jaru ko te war nañoo gestuwaat tamit néew di doole ci réew mi seen mhm. xolal tay man mhm. weer bu ne danaa génnee ci suma alal togg ay ñam yóbbu ci daara yi wala jënd ay yére yóbbul taalibe Cheikh damay xëy suma buntu kër gii. ay mhm. nit ñëw rang ma ma yëkkati joxe dépense. te pourtant ñu ma ëpp alal ñu ci réew mi. Mhm. waaye damaa nangu ne gëm ne li ma yàlla jox. Mhm. nu mu ti toll rek war naa caa mën a yëkkati defal yàlla. tarkaal xam nga ne xam nga ne loolu nga def it lu baax euh, euh, euh, parce que dama xam ne. alal ji judduwaale judduwaalewuma ak moom. te su may dee it dama ko fi baax. nit loo bëri la bëri la bëri la bëri la bëri la. booy dee juróom-ñaari mètre per carré mosoo gis milliardaire buñ gas ba mu xóot ñu sulaale ko ak fi nga koy bàyyi. tasaaroo coow am njaboot gi xuloo tasaaroo kii ne maamam lii kii ne maamam lii. Mhm. jox ko jaam yàlla na ñu moom mooy xew bi am nga suñ tuuti génneel nga defal yàlla mhm. gis nga lii nga wax nag ñëw si réew mi buñ ah, <laughs> euh, comme ni nga ko waxee nag lii nga li nga def baax na mais comme ni nga ko jàllale ci site bi comme site ko defee ci télévision bi jàppewu ko xam naa comme noonu man waxuma <laughs> nit waru koo jàllale si télé bi. Mhm. des fois da ngay gis ñu ne nit gagné na cent mille wala deux cent mille. Mhm. ñu taxawal ko ci télé bi photo ko di ko wane ne diw moo gagné deux cent mille wala loolu laa wax. ma ne loolu ngistal la. képp ku koy def te defoo ko ndax yàlla man kay man la ma la wax loolu defoo ko te yàlla tax looy def ma la wax dama ne la man. Mhm. man dama ne la man ci wàllu ndimbal laa wax. ci wàllu ndimbal. ci ñu ko man defuñ ko te man mi nga xam ne nii man yàlla rek lay wéy. te dama ne la chaque weer man suma bopp ma yëkkati suma alal togg ay ñam jënd ay yëre yóbbu ci daara yi. tarkal la loolu lu baax. suma buntu kër gi nit ñi dañuy ñëw di dépense yëkkati ma ko ci internet bi. naa ko wane bu teraanga rek dañ ko teraanga ñu ne mu li xam ne wax ne ci bët teraanga ñu ci la ci réew mi acca ci réew mi balaa ñoo jàll ci seeni beneen ponk du fekkee ne daam leneen loo gis ci jafe-jafe ci réew mi war ñu koo wax balaa ñoo jàll ci seeni dernière ponk dafa am loo xam ne. Mhm. dama koy wax toujours. gis nga sëriñ dafa bari ci réew mi. yéen waaw yéen. sëriñ waaw sëriñ. waaw ñu man su waxee rek. waaw bukki bukki yi moo tax ma dafa am ci bukki yi nag. ci ci bukki yi koo xam ne mu ngi ci internet bi ci télé di wax. te dafa won loo lor benn musicien bu jigéen. maanaam comme yéen seen classe yi daa am ñoo xam ne ay bukki la. dafa am benn bukki ñun su ma comme bukki boo xam ne nii. sëriñ si si internet bi la dafa ëmbal benn artiste bu jigéen. Hmm? li nga wax sëñ Maxtaar doy na war de li nga wax yéeme na de. dama ne yaa ngi xoolaat bu baax li nga wax. dama ne benn sëriñ. Hmm. buy génn ci internet bi ak télé yi dafa ëmbal benn artiste bu jigéen laa wax. kan la kooku kan la war a doon. xam nga toujours damay wax benn wax te nit ñi xam nga nit ñi dafa mel dañoo bëgg daal. di mille problème moo naan rang pour muy gaaw pour muy leer. acca fii lépp fi lay leer. Hmm. nit ñi bëgguñ kuy wax dëgg. bëgguñ ku leen di jéem a jubbanti. wax naa ko waxati ko dafa bëri ñu may oo di ma kalaame ak ay sëriñ gis nga dafa am loo xam ne il faut ñu waxtu dee bëri na ñoo xam ne ni ñu ngi sol ay grand mbubb te ay kurus toog ci internet beeg télé di wax lañuy ñuy wane ñoom ci seeni jëmm mhm. ak la ñuy jëf bokkul te ku leen gis rek yaakaare leen yàlla te boo jëflante ak ñoom boo jëflante ñoom rek xeeb seen jëf ah, wax nga lu xam nga ne bu ñu demee ba sëriñ ku ne sëriñ la boobu bu ñu demee ba ne ku ne sëriñ la. Hmm. di won lool nit lor teg ci te ne ko nañ ko yàq. waaw ah, kooku kan la. jigéen gi ñëw ba ci man fii. daa war a leer de fii moom. ñëw ba ci man fii toog mu ne ma. Hmm. man damaa jaaxle problème laa am lii moom fi indi. diw moom a teg lor. léegi nag daf ne ma yàq biir bi. ah wax nga jàmm de. ndax mënoo ci dara. yàq yi ma ko ah moom mi ngi toog kañ di wax ne sëriñ la. waaw yàlla may ko kañ. suite bi ah, la wax ñu kan la war naa man xanaa war naa man loolu. la. Cheikh. yàqu-yàqu yi ci réew mi lay wax. ñëw lu ci bëri. Hmm. sëriñ si la. yàqu-yàqu ci réew mi. fi hmm. bëri sëriñ si ah. sa mbokk sëriñ si la yaa ñu ko gën a xam ndax dafa am loo hmm. xam ne nii Cheikh. ah doomi <laughs> war na di bàyyi xel boppam de. oote woon na sëriñ laa dafa yomb waaye doon sëriñ moo jafe. rawatina bis penc. dama ne laa. Mhm. dafa yomb mais doon ko laa wax moo jafe. oote woon na sëriñ laa moo jafe boo boo yal nañu yàlla bukki yi dañoo bari ci réew mi. man kay man kay bukki yeeg ki ëmbal moom bëggoon nañ koo xam moom bukki yi bukki nañ li ko waaj waxee bukki yi. wala nangu koo wax ci biir kii bi bukki yi kon baax na xam naa du seetaane site bi dina xam boppam Euh, jërëjëf am na am na solo kon ca fi may jeexale tey damay jeexale kon dinaan la kon tey ci lan ngay tàggatoo jëmale ko ci. li may tàggatoo mooy dafa am lu ma yàlla woon ci képp koo xam ne ni jub na jéggi ndox lii may wax nag. Mhm. waxuma ko ngir dara dama ko wax ngir laaye biir dama ko wax ngir laaye biir. mooy képp koo xam ne jug nga jéggi ndox tukki defal juróom benn kilo ceeb ak juróom benn kilo dugub ku la ko mën a saraxel mu saraxel maanaam képp ku jéggi ndox daal di tukki ku jéggi ndox tukki mhm. ak foo mën a nekk mhm. wooteel koo xam ak ko mën a defal mu saraxel la juróom benn kiloy ceeb ak juróom benn kiloy dugub mu jox la ko mag ban jour la koy génne wala am ko def rek baax na waaye na ko jox mag mag nag saraxam ñi may déglu nekk borom xam-xam xam nañ lan mooy waral ñuy jël sarax di ko jox ma képp koo xam ne daal yaa ngi bitim réew jéggi ndox dem tukki sarax bi loolu la juróom-benn kilo ceeb juróom-benn kilo dugub nga saraxe ko. joxe ko te yàlla tax. Mhm. nga jox ko nag man. amul ma gis ñoom nag waaye nañ def loolu. tarkala. Mhm. Mhm. ñu ngi leen di ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu wa euh, di wax ne bu kii waxoon ne jaari saw dafa dafa dafa réer. ñi nga xam ne ñoo woon jaari saw dafa réer ak du feeñaat ah jaari saw de nee nañ nee nañ nee nañ sa réerutoon léegi nag ñoom maa ngi xaar seen seen seen seen seen seen seen conclusion. moom moom sëriñ si ñooy bukki quoi. ah sëriñ si génnoon maanaam bukki génnoon ne dafa réer ak. ak gis nañ ne dafa dee. ñi ko waxoon ci site internet yi nañ génnaar wax maanaam nañ génnaar joxe seen conclusion xanaa lan doon wan ak lañ gis dafa nekk dafa bokkut jaari saw. waaw xëy na daaw waane alhamdulilah rabbil alamin